karawaanu coalition Sonko président nag mi ngi amal jeexitalu tournéem bi fële ca Bambey fi nga xam ne militant yi dañ ko faa xaar ba minuit passé ngir daal di koy déglu mu wax ci programme am. bëgg nañu aussi li ñu wax léegi ci dëkk bi amul plan de modernisation bëgg nañ fi def plan de modernisation ci 10 ans yoo xam ne buñ ko paree ku dugg si ci Bambey di nga xam ni ah ab dëkk laa dugg ak capital départementale laa dugg loolu nag. dafa laaj benn ensemble ci ay infrastructure bokk na ci université yi bokk na ci polyclinique yi bokk na ci école nationale des cadres ruraux de Bambey bii te tey gis nga école bi situation bi mu mel dafa mel ni ni mu meloon 1972 1971 bi ci sama waay jur di fi génnee dafa mel ni tey ba léegi école bi noonu la mel wala gën naa bon sax kon am nañu yéene créer ensemble boobu ak ay polyclinique ak ay université moderne ba doomu Bambey mun a nekk dans des conditions raisonnables te noonu lañ ko bëgg a defee ci bépp bépp région ak bépp departement ba nit ñi mun a toog seen dëkk am fa liñ fay am bañ a ñoom ñëpp dem di dankaloo Dakar dans des conditions difficiles. moom Ousmane Sonko nag ginnaaw loolu dina dem Daaru Musti Touba ak Mbacké.